ñuy waajal lii di korité ñenn ci tailleur yi ba léegi gisaguñu benn client waaye fii ci cité xandaar bu Ouest Foire mel na ni demewul noonu ki ñu ko xamal di tailleur bii di El Soxna. alhamdulilah client yi sant yàlla ndax jàmm bi moom toujours rek sant moo ko war moo xam muy safaan moo xam muy bànneex sant moo ko war ah, client yi ñu ngi ñëw dëgg yàlla waaye ñëw gi mu daan ñëw bokkul. parce que jamono bi dafa xaw a doy waar ndax nit ñi léegi luñ lekk lañ gën a tal ci ñaawlu par rapport at yee passé ay deux mille mille dix sept yooyu mais ren moom wax dëgg yàlla client yi ñu ngi ñëw ñu ngi am tawfeex bu baax alhamdulilah. maanaam yëguñu ko waaye nag euh, léeg-léeg mu xaw a diig tuuti. waaw léeg-léeg mu xaw a di tuuti mais ren mu wax dëgg yàlla alhamdulilah. ñu bëri ñi ngi naan réew mi dafa metti nit ñi tal nañu leneen lu dul jëndi ay yére yu bees waaye ci beneen wet ga am na ci ñoo xamante ne ñoom seen ñaw daanaka noppi na teg ci ay tissu yu cher. jasner ay cuub palmaan ay brodé yi jar ay mètre douze mille wax dëgg yàlla yooyu tissu am valeur daal la am moom waaw waaw yooyu yëpp yooyu yëpp day ñëw ay pir xaay ñëw yu moo kii yooyu tissu yooyu yëpp day ñëw wax dëgg yàlla yàlla mu dafa yemale wut léeg mu may kii xeñ kii léegi jox kii xeñ kii waaye ne lu mën a xew rek dangay sant yàlla ci ci li nga xam ne moom la yàlla cëraleel te xam ne mooy sa wërsëg tamit ndax mënoo ci am lu raw sa wërsëg. tailleur bii di wuyoo ci turu Ibrahima Cissé moom mi ngi dëggal ni jamono soppeeku na bu baax waaye ba tey ñi ngi gis seen bopp ci lii di ñaw yi ak seen ay clients. waaw ñun de moom moom macha allah moom sant nañ bu baax comme li ma la wax rek xaaruñu client xam nañu des fois ñuy kii noonu xam na ñoom client la ñuy xaaru quoi mais ñun moom xaaruñu client waaw dañuy jënd suñu tisi ñaw. boo rombee boo gisee boo bëggee ñu jaay la waaw même mi comme ni waxee dañuy ñëwal client yi naam dund bi metti na lépp a cher waaye ci waajtaayu lii di ay fête lu mel ni korité bi ñu dëgmal am na ci ñenn ñoo xamante ni xalaatuñu nee nañ ñàkk a ñawlu lii di yére yu bees.